jërëjëf mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew te di ñu seetaan rek ñu ngi leen di jaajëfal mbokki France Espagne itali Angleterre Abu Dhabi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gis nañ ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak ñun waaye tey dañoo toog koo xamante ni macha allah kenn du ko présenté ci làmb muy bu ndaw bu ndaw nag ñu baree baree baree bare ci axlu làmb nee nañ bokk nañ ci xale yi nga xamante ne làmb am nañ ci moom yaakaar ñu gëj ko gis loolu mu demoon voyage bëggoon nañoo xam fan la demoon ak lan la fa wuti woon lan moo nekkoon tey sabab bi waaye nag lu ngeen mën a xam mooy ñaar bu Ndaw moo woo presse bi tey wolof nag def ne ku la woo bu la waxul jox la ñaar ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jaajëfal baax. waaw jili ginnaaw ma sant yàlla julli si Yonent bi sant samay ñaari waajur xam nga di nuyu waa Géejawaay fi ma fekk nii di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suma kilifa suma lépp maam coono borom daaru di nuyu waa Sikoori di nuyu waa diaspora bi yéen di leen bëggee bu baax xam nga di nuyu waa waa àdduna di nuyu ñu fi taxaw ñëpp journaliste yeeg ñëpp waa dal jaam yee. bu Ndaw da nga woo bi lan moo waraloon. waa woote bi mooy tey xam nga bëri nañ suñ ko combat taxaw. ñu de ñu dem Gambie dafa deux mois nekk fa di entraîné di waaj sama ko mbaat Jokal mu jege si le 12 mars. xam nga xam nga tey journaliste bi tey xam nga tey ku si nekk rek am na si man cër parce que ñoo bokkul liggéey bi tey ma jël kii bàyyi kii ma woon ñëpp rek mu jeex. Eh, man nekkaat defar sama carrière laa nekk ma dafa am fu mu si lamb fii du sama place lamb dama see am cër xam naa la ko ba dañuy dem mën a yóbbee lamb stade ma ne la fii du sama place dafa ma dem si làmb li moo tax xam nga géejawaay jox ma boobu ma nekk espoir waaw entraînement daal duñ ko fooyee duñ ko caaxaanee daal dañ koy teg si yoon chaque jour def fulla ak fayda bu baax liggéey bu baax yee wax tuuti jëf lu bëri yee tukki bi Gambie nga bëggoon dem wala waaw mënoon nañ génn seen réew mais xam nga rek day day gàtt boo nee di xaar affaire yi di xam nga ak ko la fekk ñu dem Gambie xam nga wàcc yooyu bu ñëwee rek après naas dañuy dem quoi adduna mm. moom dara jël yàkkamti yee Gambie loo waaw lépp rek yëg nañ diir musculation da dañ nañ grandé xam nga waaj bu baax parce que man loolu nekkul jokkeel man loolu si man la nekk làmb noonu laa koy waajee man làmb su ma ko jëlee rek na waaw man su ma jëlee làmb rek parce que dama koy teg ci yoon def li ma war a def daal waaw sax sama làmb rek heure bu taxawee rek man mooy loolu wax jeex na quoi. soo awu jokkeel ñu bari nee nañ amoon nga yeneen adversaire potentiel yoo waroon mën a laaleel mu nekk combat boo xam ne combat bu neex lay doon lan moo tax nga jël jokkeel. dëgg la wala dëgg sama ko maam ma gërëm lu ñu waxoon. ma la waaw ma daan ko ñu ñëwaat ma jëlaat sama morom at bu ngéwél ma ñëw confirmé waat mais léegi lu ñu bëgg. non non du question ko mag mais ñu may sax non yàlla tere <laughs> <laughs> mais làmb dafa toll foo xamante ni maanaam il ñu may la chance léegi beneen booy may la chance hmm. ñu dajee si kaw reyante foofu amul problème bañu ma si loolu mais mënu ma nekk xam nga. xam nga boo ñibbisee ñoo xam ne ñibbisi nga la noonu la demee nag doomu dëkk la. bilaay boo bañ day xaar. naas kay moo loolu yow boo ñëwee ñëw. noonu la demee dof yaa ngi sa ginnaaw. waaw yaa ngi gis day xëcc nopp looloo xew xëcc nopp yow sa nopp yow <laughs> waaw naas waaw. xam nañ ni mbër la moo xamante ni ndaanaan la mën na xeex mën na bëre waaye xam nga rek. waaw Jokal bu nekkoon lu may xeeb du ma dem fenn Jokal dama ko génnal def samay millions si àll bi fay ay coach déplacé ay coach yóbbu leen Gambie nekk fa di entraîner di liggéey yaa ngi dégg kon loolu adversaire boo noonu la wul doo ko def Jokalante dama ko respecté jox ko cër bi moom làmb ji lu doon entraîner dama koy dolliwaat dafa war am fu mu war a dem si làmb fii du sama place bi mooy sama premier combat arène làmb ji laa gën a fonk sama ay làmb wax laa wax. làmb bi a fonk ci làmb. yee parce que xam nga. waaw parce que lu ma liggéey si ay at ay ginnaaw sonn xam nga sacrifier suma life jili man vie amu vi man amu vi sax toog ak nit ñi nii man chaque jour maa ngi si entraînement chaque jour maa ngi génn tukki man làmb rek laa xam xaw ma leneen lu entraînement ma gis nga gis sama màgg di gaaw nii sax waaw parce que li may bëgg li may def dama ko bëgg billaay wallaay su yàlla yàlla de maye li muy maye lépp mën naa ko amal sama bopp parce que dama gëm sama bopp man sama la laa yaakaar ma kenn si àdduna tamit ñu ngi fi naa ku ci am question rek nga gën a jege si Ouzin Peul Ndeye Mbacke ak gaa yëpp waaw man lu ma la wax rek man dama gëm sama bopp sama bopp laa yaakaar man li tax may nekk champion kenn du ma ko def li tax may nekk mbër doomu aadama du ma ko def maa ko def sama bopp maa def sama bopp champion man incha allah si kattanu yàlla te maa si yoon bi yàlla baax na. géejewaay daa mel ni neex lay gudd ñu def. waa géejewaay xam nga yàlla yàlla yàlla def jàmm rek xam nga ñëpp am jàmm mbër yi xam nga ñu ñàkk ñu encouragé leen ñu am ndam félicité leen bu baax di ñaan jàmm bu baax. ñu ñàkk ñàkk. maanaam ñu ñàkk ñaanal leen suñu borom dafa leen jàmm bu amaatee combat yàlla may leen ndam xam nga ñi am ndam ñu ñaanal leen xam nga seen carrière gën a dem ñu dem ba dégër waa de zéro yee écurie bi nga nekk ñaata sortie lañ def ak ñaata mbër ñoo war a bëriwaat actuellement euh, ñaata victoire lañ am écurie dafa mel ne Boy Pire moo fi bëri de Boy rek moo fi bëri daanu waaw Boy Pire rek moo fi bëree ñàkk di ko encouragé bu baax di ko waxaat làmb noonu la quoi mu ñëwaat defaruwaat yee incha allah dina baax ñaa bu ndaw ñëw géejawaay gépp vraiment toppaat sa ginnaaw Euh, mu mel ni am na am na yoo xamante ni yu bare bare mbokk yi nag question bi ngeen xaar gars yi nee ñu xam ñu bës jees quoi yéen a ma gën a xam ñu continuer rek parce que xale la boo xamante ni géej waay am nañ ci moom yaakaar te ku ci mm-hmm. nekk. Mm-hmm. ndaysaan ni nga ni nga ni nga toll rek noonu ngay waxee. Mm-hmm. te booy wax ak ay doomu aadama am na ñoo xamante ni ku ci nekk ak ni muy xalaatee. kon lees waxu parce que lii nii nekkul ay wax lañ ma toppee de. Mm. waaw du ay wax lañ ma toppee du ay neex wala ay waaw man dama liggéey. dama am ci lu ma juddu am ci lu ma war a dem waaw juddu ñëw xam ma ñëw fekk lépp metti waaw man dama war a am jiili làmb dama ci sonn làmb dama ci sonn ñi ma xam dëgg man man dama sonn géejewaay yow man nekkuma ak yaay nekkuma ak papa nekkuma kenn man dama sonn géejewaay man dama juddu ba léegi may xusu di tarbiyu ba pare ma juddoo si banlieue bi waaw fekk lépp metti dafa dafa am fu mu war a dem. oui waaw maanaam loolu ñun fi lañ ko fekk sama papa dafa bañ ba xëy gaañu man bañkat la man jàmbaar la dama topp si ginnaaw ku yàlla sàkk li tax may am maa koy may sama bopp yaakaaruma si nit. billaahi mais nag naas yàlla baax na. boo boo waxee loolu dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne fi mu toll nii dañoo nekk ci tànk Niang bu Ndaw di ko ko faxastal. waaw loolu moom ñëpp la xam nga nit moom fu am ku la bëgg day gis ku la bañ xam waaw. loolu moom naaj mu àdduna ñoo ànd mais man moom bàyyi daaru laa jàmbaar la man ci muñ laa juddu ba màgg ba toll ni ma toll man ci muñ laa judd ba toll ni ma toll nii voilà ba pare ñu yar ma mu doon taalibe yee yee comme li nga wax gara comme li nga wax comme li nga wax ne da say morom nga ñëw jël ki nga xamante ne mooy jokkeel ñu la doon xaar ci combat jànk yi ba tey Mor Kang sa morom ak yeneen combat yi lan moo tax jël ki nga xamante ne mooy Jokal. waaw Jokal Ndiaye mu ma xam nga sama ménager ma koy ak ñoom dund non jo la gars yi wax xam mu nekk mbër nekk champion mais ma chance dafa may chance si làmb parce que Jokal bëri na ak ay ndaanaan xam na feeg ñoom fëgala bëri na feeg kii euh, Goro Sock bëri na feeg gars yëpp tey man su su ma su ma liggéeyee ba ba bëreeg Jokal xam nga sant yàlla daal man booy bu ndaw laa si làmb. defaguma dara si làmb nekkuma mbër mbër laa bëgg a nekk kon su ma bëree jokel moment bii nii nii sama jàmbaarte ak sama jom ak sama fulaak fayda moo ma ko may pël ñëw nga stade fekk moom may bëre mosuma guddal benn amateur mosuma bëri combat bu naqari man dama ñëw rek bëre def def samay preuve boo xoolee samay morom ñii ah, def na seen combat sorti ñàkk ñee ñee ñëwaat dafa seen ah, seen combat sorti am ndam man samay combat sorti yëpp dama ko tegale daan daan rëm daan armée bu ngéwal mais la fekk ma bëree samay ay mag soo bëree samay ay mag beneen booy bu ñu may sens ci kaw ñu ñu bëre foofu moytu ma sama benn morom mais waaw yëpp non man duma favori man góoma loolu de <laughs> non waaw man la ñëpp mais ma loolu góoma ko waaw waaw loolu liggéey rek daf may gën yokk jom rek yaa ko mën man ko mën man loolu doxewuma ko quoi yaa ko mën yaa ko mën non man loolu dégguma loolu sax loolu dawul sama yoon waaw daf may yokk doom parce que tey parce que fi ma jëm di fii quoi du jokkeel tam mbër la champion wala mais moom du sama vision quoi mais dafa am foo dem si làmb non du faxas maa ngi liggéey waaw li ma entraînement wala dëgg doon lu ko raw lu ko raw laay ñu ngi waaj ñu ngi waaj yeneen nga xam ne kon làmb waaw maa gën a bëgg combat moom bu ko jëralee benn man jëral na ma ko man mu nekk xale bàyyi sama lépp sacrifier sama life jël combat bi ndax moom. fii du nooy rek risque la instant balu mën na ñëw dal la benn caméra nga daanu fi taxaw ni àdduna lépp risque la laa ngi gis damay ñëw teg ko si yoon def fu laak fere nu mu doon laay bëree amul leen lu may wàññi si combat lépp laa yokk barki borom daaru ma yaakaar combat bi bu ko jëlee ba léegi ay coono lañ may teg ba léegi noppaluma daluma ak yeneen yi amul benn différence. non am na différence kay parce que lu may gën di dem muy gën di metti lu may gën di dem muy gën di yokku lépp di gën di yokku boo xoolee sama combat bee boo xoolee sama combat bee passé nu ma wàññee poids combat bi nu ma yokkee poids du benn. grand contre petit du benn daal waaw dafa xew waaw waa waa waaw tamit nag. waaw dañoo jàppoon. ko paala waaw waaw yaa ngi gis waaw waaw waaw mu ngi gis Baba Jaxal waaw gis nga làmb dafa toll foo xamante ne nii mag yee ngi wane bébé bis bi ah baax na waaw làmb làmb dafa am foo xamante ni boo si tolloo il faut ñu may la sens loolu la de ah. làmb dafa am may sens loolu ñu fi lañ ko fekk suñu ay mag dañ leen a may sens hmm. waaw suñu ay mag dañ leen a may sens ñu suñu ay rek jëm ñun tam gars yi nañ ñu may sens di ñaanal bépp mbër bi nga xamante ni yëmu si kaw na may booy sens booy ñëw si kaw waaw sama génération ñëpp ne leen gars yi am essence ñu ñu bëre si kaw. kan mooy ñëw foofu. nice abu am nga kees abu seet ay ca. at bi sifle lu ñu mën a xaar mooy teg ko ci yoon rek waaw moom moom lu ma moom moom moom na xaar jokel hmm. jokel na xaar lépp maa koy def xam nga dama saa benn interview am mu ne ñaabu ndaw day ñëw ambiance ma jàpp ko du ko daan ko. yaa ngi gis waaw lu mu gëm la wax xam nga moom ndax taxaw xaar lépp maa koy def incha allah si kàttanu yàlla may tuus mu neex may bëre mu neex may mobiliser est-ce xam nga jokkeel bi ngay bëre waaw xam naa xam nga ko dama xeex mën nekk ci ay tolof tolof nga yaakaar ni da ngay jéggi jàll waaw man man loolu dawul sama yaram jili yoo xam nga ma am na yàlla baax na ñaar la gën a mënee moom lan la gën a mënee nga xam ne lii mënee loolu moom moom sama secret la ko waaw waaw li mu gën a mënee ak ay fodam ak ay fayam nag loolu noonu dama koy garder pour man quoi dama koy garder pour man ba le jour ji. supporteru ñaa ñaa bu ndaw ñi yëgul woon ñaa bu ndaw jógee na Gambie ñëw na lan nga ay question bi ma am rek mooy li ñu wax ñuy wax Balla Gaye dafa woon taxaw waaw lamb la rek xam nga suñu borom mooy mooy xañe mooy maye quoi. Hmm. waaw nice lamb la. boo ñaan yàlla may na ko ndam xam nga Balla Gaye moom jàmbaar la gaynde la quoi. Hmm. li mu def si làmb mbëri fu gaaw a defaat. Hmm. di la ñaanal jàmm am na solo boo gisee question bi nu mu ci tontoore nga xam ne ndeysaan dafa mal placé wu euh, pour pour pour tontu ci question boobu ñu jéggal ko ko rek parce que xam na ni ndeysaan xam nga rek wax dafa metti te senegal bi ñaa ma gën a xam nante yi la ñuy wax waaw nante yi la ñuy waxal yéen a ma gën a xam léegi ñaamu ndaw ñu ñëw ci tàggatoo bi nga tàggu sa mbokk yi woote euh, sa daje yaag euh, sa waay wala Ousseyn am nga woote bi xam nga damay woo gën a woowaat rek damay woowaat sama woowaat dëkk rek xam nga di leen wax waa Géejawaay waaw nu nu ma nu ma ma nu ma la quoi waaw waa Géejawaay waa Géejawaay ma ma taxaw surtout fu ma dëkk Gunaas. man Gunaas laa dëkk man fi laa juddoo fi laa yoroo man du ma luyaas ma wàllu yaan man fi laa raamee fii fi nga ma fekk ni nii hmm. école bi fi laa raamee fi laa fooyee fi laa màggee war na borom daaru moo jantal maara boobu billaay sama papa maa ngi bu baax xam nga di nuyu war waa Guédiawaye bu baax xam nga di nuyu ma fi yaa dof xam nga di nuyu sama sama papa suma yaay xam nga di di woo ñi nga xamante ni si combat bi teel may jàppale Babacar Diop maa ngi koy woo bu baax a baax a baax Lat Diop xam nga maa ngi koy woo bu baax di woo fay bu la Diop fay sama papa xam nga di jël nuyoo bi di ko teg di ko teg ci loxo Asera sama papa waaw di woo la Diop ne ko dama bëgg mu ñëw jàppale ma Malick Gakou maa ngi koy woo jël nuyoo bi teg ko loxo guy gi teg loxo Baro xam nga di woo ci combat bu baax maanaam autorité yi nekk Guédiawaye bëgg ñu génn jàppale ñu waaw parce que làmb ji dafa métti daal parce que ñun mënuñu ñëw di jënd ay huit bologu billets ay neuf bologu billets di génn suñu moyen du ko def yaa ngi gis waaw maa leen woo bu baax di woowaat Ahmed Aïdara maa ngi koy woo di woo Baydi di woo Fouta Kosom waaw maa ngi woo Jiri Ndeye Mar Ibou Thiam borom Paris Cheikh américain Bass américain King américain Nene yaa ngi gis maa ngi woo tam waa yoor maa leen nuyu bu baax waa Sicap waaw Obali maa ngi koy nuyu bu baax Ibou Ndiaye Diofior nuyu la de guerre deux suma grand suma kilifa ko wax mu waaj bu baax xam nga ñi may jàppale ne si koñ bi ñëpp maa leen nuyu Assane Mbodj sama doomu ndey waaw Assane Mbodj oo ma fayam nuyu bu baax Baye Sall Ndiaye xam nga Ablaye Pea maa ngi koy nuyu Ablaye Pea yow booy Issa waaw booy Issa maa ngi koy woo borom faja balogu biyee laa la sas si combat bi waaw biyee bu laa la sas waaw di xam nga ñëpp ñu may jàppale képp ki nga xamante ne day sonn si ñaabu loolu Amed nuyu bu baax xam nga yow borom town waaw di nuyuwaat waa koñ mm. xam nga di may bëggee du ma sagoo xam nga waaw du du nuyuwaat ñëpp ñoom Pam Mbengue Angleterre du nuyu waa Gambie fu ma nekkoon xam nga sama gàlle bu ma nekkoon Gambie maa ngi leen nuyu bu baax sama grand Pam Mour maa ngi nuyu jabaram di nuyu di nuyu yaayam di nuyu Maymouna tam Angleterre rakam xam nga di ko nuyu Maymouna di nuyu jëkkëram tam ala